لا إله إلا ab Ablaye Ndiaye ñu gën koo xam ci Ndiaye di comme comédien boo xam ne ràññee woon nañu ko lool ci Kouthia Show foofu la ci TFM comédien xam ne yàgg naa bëggal askanu Sénégal ndax rek li nga xam ne mu ngi ko doon def mu nekkoon ab soudeur métallique yenn saa sax mu daan moddu ci jàkka yi moom moomee sax gis nañu ko moom ak Samba Sine ñu gën koo xam ci Kouthia liggéey bi mucc ayib boo xam ne doon nañu ko def foofu la ci TFM mu am soxna am ab doom bu jigéen moom comme comédien bi nga xam ne nag moom a liggéey na lu am solo ci wàllum comédie gis nañu sax ci ay interview yi nga xam am doon na ko def doon na rek dellu si waat ci jaar-jaaram bi nga xam ne nag amoon na ko ba toog ko diir gu yàgg goo xam ne moom mi yaay kenn gisatu ko taxoon na sax animateur bu DTV bi di DJ Yves nag ne nag ki nga xam ne moom moo doon ànd ak Kouthia dafa tëdd ci lalu hôpital feebar bi moo ko sonaloon tey ñu jékki-jékki rek jot xibaar bu tiis boo xam ne tey ji métti na lool askanu Sénégal rawat nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi na Ndiaye moom mais daal dina wuy ji boromam équipe Dakar Buzz yëpp nag ñi ngi koy jaal Sénégal waaye di ko jaale famille wi di ko ñaan yàlla xare ko caajale bi gën a kawe.